parti politique nangam sangam te jàpp naa ni il ne va pas revenir té il a conforté il a réconforté Samba Ndiaye dans sa position. parce que fofu ñëw na ci ci coalition bi di xamale ni transhumant amu fi ndax ko xam ci coalition la woon défendu battre campagne bañu am li ñu am du léegi il a même défendu Samba dans ses propos pour wax ni xamna ci ñoo xamanteni dañu nekkoon nañ candidat Samba était candidat mhm. Mhm. waaw waaw

dañoo génnewaat ay vidéo yu Samba Ndiaye doon waxee mais président nee na ki mu ko doon wax kooku nee na baale na. waaw te waxaat na ko bi mu taxawee arena ne na. waaw ne baale na. c'est mais lii problème bi mooy ki baale moo bind ci page Facebook am. loolu c'est manière de le mettre devant devant ses propos. à dire ki baale moo bind ci page Facebook am. wax ñang tag boy yi tag boy yi tag de dinañ andi des mesures correctives correctives xam nga lu fi ne dañuy ñaan yalla li nit ñi di njort par rapport aux déclar deux déclarations mu bañ am mais nak mais nag euh, euh, il faut nga ñëwaat également ci conviction bi nga amone que ni président da fay toxal élection yi xam lan mo wara justifier en tout cas su fekkante ne yow say source leer na non c'est pas des sources du njort la won njort la rek waaw waaw waaw njort la mhm. parce que quand même mais mënoo mënoo xalaat par exemple que ni président xeyna loolu la doon waaj mais amna na concours de ça c'est-à-dire c'est-à-dire c'est-à-dire retard bi sax retard bi de 15 minutes yow loolu nga koy gën a attribuer mën na nekk loolu parce que pourquoi le chef d'État communique à pareil moment non parce que nag wax dëgg yàlla wax bi am na solo mais foog naa ni ku ci nekk en ton fort intérieur. tu t'attends pas à ça am une petite déception. parce que jàppoon nañ ni. waa nak nag am na lu ñuy wax am na lu di wax li mu wax solo de. amna solo njaboot dañ koy ñaax. loolu tax ma la fàttali. xam nga Kaldi moo tax ma ne la quelle est l'information qu'il nous a donné aucune parce que yéen journaliste nga. information nar nar naar laa may may boobu quoi. du deug mhm. yéen ay yow yow yow yow euh, Alima journaliste mhm. nga yow information nga soxla. Mhm. looy titre suba.

jafe-jafe bi nga xamné amna ci et il a parlé il a parlé sans pour autant parler de la zone nord de l'augmentation cru bi mi ngi jóg di yokku di avancer waxuti est-ce que waxu ci amul lu ñu rëcc. amul dara luñu le rëcc lire liiree texte bi. Hmm. waxu est-ce que tu comprends c'est-à-dire c'est vrai il peut pas tout dire dans un discours de cinq minutes. Ouais, c'est ça. Parce qu'il a parlé pendant cinq minutes, hein, quoi qu'on puisse dire. D'accord. il faut pas tout dire. Oh. man nga jàpp naa ni am na lu mu bëggoon wax lu ñu mujj. am na na lu mu doon ah, na ñu bëggoon wax de. parce que nit ñi njortoon nañ report nit ñi njortoon nañ leneen parce que commencé woon nañ ko agiter parce que nag je vous donne l'information. Mm-hmm. que sànq à partir de 17h les gens ont parlé au niveau de la média les les membres de la société civile de devaient se rencontrer. pour contrecarrer mm-hmm. cette décision de report. si si parce que Mme Diagne je ngi gis sànq nous ngi. publié na ñun wax nañ ci man téléphone mais l'État est renseigné. Mm-hmm. Ah, et si. su nous glisser dans ce terrain. Mm-hmm. ils perdent du terrain. d'accord. n'est-ce pas. c'est de l'intelligence politique moo nit ñi doon wax naan mënoon nañ ñu ko vocal soo liiree groupe barça bi tout le monde dit ah, mënoon na yem ci vocal bi parce que parce que on s'attendait à autre chose maintenant il y a un problème la date est maintenue Paldi nous disait que report waroon naa mën am partiel par rapport aux situations des populations du Nord mhm. il n'en a pas fait état comment ces gens-là vont voter non mais non mais non mais par exemple l'ol tamit dans un discours à la nation c'est-à-dire que c'est des mesures concrètes que le gouvernement notamment via le ministère de l'Intérieur qui organise des élections vont prendre et pour cela il peut les instruire. pourtant ne pourtant wax naa le congé de non non non non non dama ne problème comment on fait pour reloger ou euh, transporter tout ce monde là où est-ce qu'ils vont voter ça c'est problème yow nous avons toute la solution mën nga ko ce mais président agité en tout cas ils peuvent avoir également des informations Ils ont des crues à l'est crues au nord donc nous allons quelles mesures ils vont prendre pour que gérer loolu de toute façon tant que nous moom mi élection day am ça ne nous garantit pas que élection day am. Ah, ça veut dire qu'ils sont dans les meilleurs. je vous garantis. que ces élections seront transparentes. exactement si élection il y a elles seront transparentes. mais par contre. non non c'est ce que nous souhaitons mënatul ñàkk transparent dans dans ce pays là. c'est ce problème est réglé depuis très longtemps. c'est ce que nous souhaitons. Mm-hmm. mais li agiter les mesures concrètes à pour que nous ne vote cela appartient au gouvernement. il y a l'armée tu as parlé du génie civil. il ah, va oui mais il aura à sa disposition l'armée le ministère de l'intérieur mhm. la police la gendarmerie l'armée mais territoire. mais le président Diomaye aussi insiste hein, euh, sur la réconciliation. Waouh, waouh, et c'est important Lolo yàgg d'abord depuis son premier discours le, ngi wax xam réconciliation nag dafa am ay ay ay ay mais principe principe mais dafa am ay points yoo xamante ne ci ngay réconcilier su fekkante deux types de Sénégalais parce que réconciliation autour de la justice de l'équité et de l'égalité règle ce chance égalité des chances aujourd'hui euh, par exemple maa ngi gis euh, suñu yaay Aïda Mbodj mi ngi am ñu muy porter plainte sax parce que dañ ne deer dafay def dañuy politiquer mbir mi mais su fekkante ne loolu la pour nga wax réconciliation wane ni Sénégalais yëpp ñoo tolloo non dang yow yaa koy wax di ko prêcher mais nit yi duñ ko gëm su fekkante ne euh, Ahmed Suzanne Camara dafa saaga ñu tëj ko mu valoir ko des mois kaso keneen saaga ñu envoyé ñu envoyé message ñu envoyé message premier ministre ne ko kii ci yéen lañ bokk qu'est-ce qu'il faut mais da ngay wax réconciliation du am donc fay am autour de principes, yu fort autour de valeurs, yo xamante ñom ñoy ñooy fondé ñoom ñooy cimenter suñu vivre ensemble mm-hmm. ah lool nak mom il faut joindre la pacte la, parole à l'acte aujourd'hui wax nako, ko nako, mais dafa war a non seulement un discours mais des actes de tous les jours yo xamante da fay rassurer mais effectivement dañ ci fay dalal suñu